bu ko defee nag bu dee ci yoon Maalik moom sañ ngaa xool kanamu jigéen ji ndegam xool nga jubloo ca bànneex te it ragaloo ci fitna boo ci jubloo bànneex ca xool ganam mbaa nga mbaa fitna mën na ca am nag kon nga bàyyi bañ a xool jigéen ji itam kon du aajowu muy muur kanamam ak ay tengam bu dee jamono yi jébéer amee nag moom jébéer moo góor la ñëwale awra xam ne awra moo tàmbale jumbax ba ca bëtiwoom jébéer mooy jàmbu jigéen was ci xibaalu xiblati ak jublu xibla bokk na ci sarti julli nga jublu xibla jublu xibla mooy boo nekkee Makka ak la ko wër te mën a jublu jëmmi Kaaba ga faaw da ngay jublu jëmmi Kaaba ga bu fekkee nekkoo Makka ak la ko wër nag nga fexe ba jublu fa wet ga Kaaba ga féete rek mu nekk sa xibla illaa fil xitaal dara ci xeex ba xaalatal iltihaam yi ci waxtu tampaloo xare ba maanaam bu fekkee jullit nga ñuy xeex ak yéefar yi moom te amuñu sagos xaaj mbooloo mu ñaari xaaj def salaatul xaw fi xaaj bee julli bee di xeex nañ ko daan nose fekk loolu mënta am kon kenn ku nekk noo mën a jullee rek jullee ko duñu sart nga jublu xibla foo jublu rek baax na mën ngay julli daw mën ngay julli dox mën ngaa jublu xibla mën ngaa bañ a jublu xibla mën ngay julli xeex sax mbaa ñu jam la ngay fayu yëpp du wàññi dara wa fi naafilis ak ci naafila fi safar ci tukki ba al mubih bay aji daganal lil qasri ñeel wàññi lu raaki bi ñeel aji war fa ba tey bu fekkee da ngay tukki tukki boo xam ne mat na dox wàññi am ñu ko tolloo la ci soixante douze kilomètres am na quatre vingt neuf kilomètres yu tegal tuuti tolloo tolloo la mooy tukki tukki bu toll noonu te war daaba moo xam fas la moo xam gëléem la moo xam mbaam la kon daañu la may bu fekkee da ngaa bëgg a naafi la fa nga dëgmal rek mën ngaa julli jëm foofa léegi boo waroon aw fas mbaa gëléem mbaa mbaam xëy jëm Thiès wala Dakar rek nga foofu mat ndox wàññi bu baax a baax kon boo bëggee julli yor yor fi daa ba jëm muy soow rek mën ngaa julli jëm foofa wa man salla ku julli ilaa xayril xiblati jëm si lul xibla naas yéen mbir mi aju fàtte falam yaalam te yëgut xataa faraxa ba mu noppi min salaati julleem nga ahaada mu baamu abadan faaw mu ne am nañu wax ne bu fekkee yoo xam nga ne xibla fee la waaye nag ba ngay julli da ngaa fàtte ba jubluwoo foofa benn da ngaa fàtte woon ne jublu xibla kat ab sart la ci wérug julli gi mbaa da ngaa fàtte woon wet ga nga xam ne fa la xibla féete ba jubluwoo fa mu ne am nañu ne kon da ngay baamu faaw faaw waaye nag way jaa adikk na fii daalika ci loolee xilaafun ak wuute am nañu ne ndegam da nga koo fàtte rek moom julli ga baax na boo ko tayoon rek lay yàqu waaye ndegam da nga koo fàtte moom julli ga dana baax waaye nag li wax nii mooy nga julli ba sëlmal door a seetlu ne jubluwoon xibla waaye bu fekkee ne ci biir julli gi ci nga yëg ne yow kat jubluwoo xibla moom dañuy seet bu fekkee ne day gumba dañ koy may moom mooñal bi ku ndànk rek jublu xibla te lam defan baax na lam defan du yàqu bu fekkee gumboo waaye la nga mooy tuuti la itam nga wañal bi ku ndànk rek ñu jéggal la ko nga jublu xibla tëwee bu des nag bu fekkee gumboo te da ngaa mooy xibla lu bare bari te yëg ko ci biir julli gi kooku moom faaw day aajowoo nga dagg julli ga te tàmbaliwaat ko wa kazaliki nii inkaana dem nekk na jaahilan di aji réere aw xaamid wala mu aji tey xam nga li waxal léegi mooy la ko tey jublu xibla ak fàtte la fii nag moom umpale xibla moo tax wala moo ko tey ba noppi bay jublu xibla bu ko teyee ba noppi xam ne fee xibla ba noppi jubluwu fa moom wax ji gën a wóor mooy julleem day yàqu ndax day forek bu des nag bu fekkee umpale la bu fekkee umpale la mu dañ ne woon moom bu umpalee xibla te amu ci yenn tegtal gisul kenn ku ko mën a wax ne ko fee xibla féete kon day tànn rek fu ko neex julli jëm fa bu xasee tànn jublu fa ko neex nag moom gannaaw ba bu fekkee foofu du xibla yi jaanam wàcc na moom ndax ndegam moom amutoon ay tegtal gistoon kenn koo tegtal moom ah ñu ne ko tànnal fu la neex jëm fu mu tànn jëm rek bu jublu jëm foofu rek moom baax na faslun faraidu salaati faratay julli arbaata achara fukk laa ñeent faratay julli fukk laa ñeent daa wàññi fukk ñeent ndax taxawaayu armal bi ak taxawaayu jàng fatiha da ko wàññi muy benn te ba tey moom wàññiwaale wut yéene roy ci sa ilimaan bu fekkee ne am na koo bëgg mu jiite la ngéem julli ndax moom bu fekkee ne amoo ilimaan ba yéene roy ci moom rek du bokk ci farata yi al ula bu jëkk ba takbiratul ihrami baru xarmal li kulli musallim ñeel jëpp aji julli nee na kabar bi ngay njëkk a kabar nga xam ne moo lay tax dugg ci julli gi moom farata la kuy julli ku ne nag farata la ci moom moo xam day kenn kuy julli moo xam day ilimaan moo xam day maamoom wala zuha baatam ba nag mooy allahu akbar min xayri ishbaahi baayi ci ludul reggal baaba maanaam ci ludul bijji baaba nee nag ku mën di kabar kabar armal day wax allahu akbar te bañ a bijji baabi naa akbar loolu ëpp naa def wala yu gisiw du doy xayruhaa ludul moom in kaana dem nekk na yu sinu di rafetal alxarabiyata làmmiñu arab nee na bu fekkee mën ngaa wax allahu akbar ci làmmiñu arab kon moom rek ngay mën a wax mu doy waaye boo ne woon akbarullahu sax mbaa allahu azam ñu bokk maanaay du ko tax a baax amaa man daal ka nga xam ne laa yu sinuhaa du rafetal làmmiñu arab nag faxile waxees na ne yedduxul day tàbb yedduxul day tàbb ci julli nga bi niyati ak yéene rek duunal xajamiyat ci lu dul làmmiñu làkk wa waxile waxees na ne yedduxulu day tàbb ci julli nga bi luxat yi ànd ak aw làngam muy aw waxinam maanaam koo xam mënoo wax allahu akbar ci làmmiñu arab waaye mën nga ko wax ci wolof ci misaal mbaa ci weneen langue ni ci séréer ndax da ngay bàyyi bañ ko wax ci wenn langue ne nga mënoo ko rek mu wàcc la am na nga am dañuy seet na nga ko mën a waxee rek nga waxee ko noona waaw kay loolu am na wóote wax ci gën a wóor nag mooy soo ko mënee wax ci arab daal mu war la waaye su fekkee mënoo ko rek wàcc na la boo ko weccee leneen jooju wax daal moo gën a wóor ak taaniyatu ñaareel bi anniyatu mooy yéene bi an yaqsida ci mu jublu bi xal bi ci xolam te du xoola tàbbi ga fi salaat si julli ga almuayyanati gadiguñu ràññeel wa yakkoon tey nekk xas duhoo jubloom ga mu xaari nan di aji lëngoog di aji lëkkaloog di law si takbiiri ñeel baatub kabar wa nee na yéene te mooy dogu ci julli julli sàngam ndax faaw da ngay ràññeel julli googa bu dee julli gu teew nag boo yéenee gii teew rek mu daal doy kon yéenee julli julli googa te bu dee tisbaar nga yéene tisbaar bu dee takkusaan takkusaan bu dee gee gee kon nga koy ràññeel loola mënu caa ñàkk tey di yéene ji sës ci wax ji allahu akbar nga xam ne booy dawal yéene ji ci xel mi daal di wax rek allahu akbar lëkkale gi wax na jubluwuñ nga bëgg koo lëkkale ba tax ngay jax-jaxi mbaa dara moom daal boo waxee sama xel ne yéene naa cis baa daal di wax allahu akbar rek mu sës ci fa saas loolu doy na sëkk ci lëkkale gi walaa il sama xoo du ko war at taxarudu gaaral ga at taxarudu fii niyati yi ci yéeneem ja li xadadi rakaxaati ñe li mu rakka ya du aajo woon nag boo yéene julli nga yéenewaale nangami rakka yi nga xam ne moom la julli googa doon ne bu dee tisbaar boo yéene tisbaar rek ci ràññeel mu doy du aajo nga yéene ñeenti rakka yi faratay tisbaar ki di bu dee suba itam du aajo nga yéen liwu rakkaam muy ñaar déedéet ak taalisatu ñetteel bi xiraatul fatihati mooy jàng fatiha xalal imaam wa ilimaan wal basi ak kenn di daalin ci daal moo ajamatin guddi guñ tomb ay li mu ci namm al munfaridi kenn rek muy aju wéet nee na jàng fatiha farata la ci ñaar boo dee jul yow dong jàng fatiha farata la ci yow boo dee jiite ba tey jàng faatee faratala ci yow su amee ku lay jiite nag moom yow bu jàngee rek jàngal na la dañuy sit bu ilimaan jàngee rek jàngal na la loolu moo wér ci yoonu Maalik arrabixata ñeenteel bi alqiyaamu mooy taxawaay ba lil ihraami ñeel armal nga wali xiraatil fatihati ak ñeel jàng fatiha ba tey foofu dafay lëkkale yaar yoo xam nañu ko daan teqale dañ daan wax naa taxawaayu kàbbaru armal ba ak taxawaay jàng fatiha muy ñaar da ko far boole rek tudd benn taxawaay delloo benn ba ci armal ga delloo benn ci jàng fatiha ga waaye noonu lu ci nekk rek moom booy armal nga nga taxaw ne nga mën ngaa taxaw bañ a toog booy jàng fatiha itam noonu taxawaay bu nu caa ñàkk farata la alxaamisu juróomeel ba ar rukoo mooy rukoo wa akmaluhoo gën jaa matam nag an yan xan yow mooy mu sëgg pexe su yestaw yi ci foo xam ne yemoo zahruhoo gannaawam nga wa xunuxoo ak doqam nga wayan si ba te muy samp rukk ba tey ñaari bëti woom ya wayan daxa te muy teg ka fay yaari jàngam ya alayhima ci kaw ñaari bëti woom ya neen rukkoo ba tey farata la mooy juróomeel bi li gën a mat ci rukkoo nag moom mooy nga sëgg sëgg boo xam ne sa gannaaw ak sa doq day maase doo ci duuxal lenn doo ci siggil lenn doo ci téenal lenn su ko defee say bëti woom say tànk nga samp ko mu taxaw diju bu wér a wér bu ko defee itam nga teg say jéngo ci say bëti woom ndax moom boo xasee sëgg ba say loxo jege say bëti woom rek rukkoo daal nay am wayu jaaf yi dana soreeli arrajulu góor mbir fa xëy yaari concoom ya xan jëm bay yi wala si yaari wetam ya wala yu nakkisu te du jat rasaxoo boppam ba li fi nekk yekkoom day nekk zahruhoo gannaawam nga mustaw yéen di aji yemoo dañoo bëgg boo dee rukkoo nag te ka denda yow xatalu la nga xaw a yàng say përëg sori say poqataan bu ko defee nag sa bopp itam nga bañ koo jat bañ koo téenal mu maase rek digg doomu as saa di sab juróom-benneel bi as sujoodu mooy sujood wasifatuhoo meloom wa ay makki na mooy mu dëgëral jab xataxoo jëxam ba wa an faxoo ak bakkanam ba minal ard ci suuf wa rukubateen ak yaari bëti woom ya wa asaabi xal xadamay ni ak baaraam yi ñaari ndëggu ya nee na sujjóot mooy juróom benneelu farata yi da ngay dëpp sab jë fi suuf ak sa bakkan bu ko def fekk nga sukk say bëti woom say cati baaraam yi ndëggu itam samp jëm suuf say ténq itam nga rëppeel ko mu tolloog fa nga dëpp sab jë denn ak nopp yi waaye nag sujjóot ci jëbi rek moom mooy farata sujjóot ci bakkan bi ak sujjóot ci bëti woom yi sukk ko ak cati baaraam ndëgg yu demee noonu moom sunna la assaabihatu juróom-ñaareel ba wattaaminatu ak juróom-ñetteel ba arrafu mooy siggi mina rukoo ci rukoo ba wa sujjóot ak sujjóot ba di leen far wàññeendoo benn yoon xam nga siggee ci rukoo ba day farata siggee ci sujjóot ba itam di farata moo tax ma daa jekki-jekki ne juróom-ñaar ak juróom-ñetteel daal mooy nga siggee ci rukkoo ba ak nga siggee ci sujjóot ba jàppal ne na nga rukkooy rek boo ne boo boo jàllee daal sujjóot noonu te siggi woo waaw ñàkk googu siggi bàyyi nga farata faaw nga siggi sujjóot ba it noonu la faaw nga siggee ci sujjóot ba ndax benn sujjóot loo ci yàgg-yàgg du mën a wecci ñaar déedéet fa in taraka woon dem bàyyi na ko rek wajabat war ak ihaadatu baamu nga maanaam bu fekkee da ngaa rukkoo te siggi woo ji rukkoo ba door a jàll kon day aajoo nga dellu rukkoowaat siggi nag door a jàll ndax faaw siggi gi moom ca rukkoo ba lay bàyyi ko kon nag bu fekkee ne rukkoo nga te siggi woo ci rukkoo ba daal jàll rek sujjóot day aajoo nga delluwaat rukkoowaat siggee na ci rukkoo ba door a jàll sujjóot sujjóot ba itam na moytu rek yëkkati boppam tuuti daal delluwaat sujjóotaat fa saasay saasa mel ni ku yàkkamtee noona déedéet daañu leeral ne bokk na ci farata yi bu sujjootee mu siggi ba mel na meloon laata muy sujjoot door a delluwaat sujjootaat sujjoot ba ca des ndegam sujjoot moo ca sës loolu ak yemoo lañ koy tudde daañu ko leeral ci kanam tuuti ab taasi xatu juróom-ñeenteel ba aljuloosu mooy jataay ba li salaami ñeel salmal ba ñeel salmal ba xadrama kem la nga xam ne yaa tadil dana yemoo fii ci moom wa yusallimu te muy salmal juróom-ñeenteel bi nag mooy diir bi ngay waxee asalaamaaleykum asalaamaaleykum ci boppam day farata diir ba nga koy waxee nag nga toog ko moom itam day farata boo yàkkamti woon ba nga xam ne da ngay wax asalaamaaleykum da ngaa jug di dem kon da nga bàyyi farata alxaasiratu fukkeel bi taslimatu taxliili mooy salmalu yeeku ba waxiye moom asalaamaaleykum moo di asalaamaaleykum wala yu siw du doy xayruhaa lu dul moom sëlmal bi bi lay sëlmal bi lay génne ci julli gi moom la ñuy wax sëlmalu yewi ko nga wax asalaamaaleykum farata la wax nan léegi jataay ba ngay toog di ko wax ne farata la moom nag noonu la nga ko mën a waxee mu doy boo ne woon salaamun aleykum bañ koo taara du baax boo ne woon wa aleykumu salaam bañ ko tegal ne mu tegaloo du baax walay sa xalal imaam yi déddi war ilimaan wala basi ak kenn xëyruhaa lu bokkut ak moom maanaam boo dee jógeew dong wala nga xam ne yaay jiite benn sëlmal boobu rek ngay def doo sëlmal ñaari yoon baa ñett wa amal ma amoon daal ma amoon fa yusallimu haa dana ko sëlmal xan yaminihi walis ndeyjooram su ma yusallimu topp dana sëlmal xobaaltu wacc yi ci njëkku kanamam yàq si dana jublu bi ci moom radda delloo xalal imaam yi ci ilimaan ba su ma yusallimu topp dana sëlmal xalaa yasaari càmmoñam ba in kaana dem nekk na xale si càmmoñ ba ahadun kenn ba tey yàq si dana jublu bi xaa ci moom radda delloo nga xale si ci moom soo doonee maamoom moom am na ku lay jiite xëy na nga wax asalaamaaleykum ñetti yoon ndax da nga wax asalaamaaleykum muy sa farata da nga wax asalaamaaleykum delloo sa ilimaan waaye ci suuf nga koy wax nga waxaa benn asalaamaaleykum delloo ci sa càmmoñ ndegam am na ku la féete càmmoñ te am na julli ga lu matub rakka waaye bu fekkee kenn féete wala càmmoñ ba amu ci lu matub rakka ci julli ga kon doo ko delloo dara dara wal afdalu la gën fi taslimati raddi ci sëlmalu delloo ba an takkoona mooy mu nekk bi lafzi taslimati taxliili ci baatub sëlmalu yewiku ba maanaam sëlmal bi ngay delloo sa ilimaan wala ki lu féete càmmooñ la gën mooy nga waxee ko ni ngay waxee sëlmalu farata bi wax ne asalaamaaleykum taara ko de sax boo ne woon salaamun aleykum rek ba tey mu baax ci bi nga koy delloo waaye nag nga wax as asalaamaaleykum muy bi ngay delloo ilimaan ak la féete càmmooñ loolu moo gën wala yushtarak teefu sart ak yan wi an yanu ye mu yéene bi salaami yi ca salmalam ba alxorooji génn ga mina salaati ci julli ga xala ahadil xawlayni ci benn ci yaari wax ye al mashhurayni ya dañu siiwal mu ne am na ñaari wax am na ñu ne booy wax asalaamaaleykum da nga ci yéenee noppi ci julli gi am ñu ne déedéet jëru ko boo ko waxee rek mu doy wax ji gën a wóor nag mooy waaw boo waxee asalaamaaleykum rek mu doy sartaali wuñ ci nga yéene caa noppi ca julli ga wa muqaabiluhu wax ba jàkkaarloog moom nag mooy laa budda mënta ñàkk min zalika ci loolee am na wax bu na am na wax boo am soo ko toppee moom tey wane ne booy wax asalaamaaleykum taw nga yéene waale ci noppi ci julli gi waxale ci ko wax jooju yàq sil day jul al imaamu ilimaan ba bi salaami si ci salmalam ba alxuroo jég yéen min salaat ci julli ga wa salaama ak nuyu xalal malaayikati ci malaayika ya wal muqtadina ak weerooy ña bi ci moom wa yàq si tey jublu alfaz kenn asalaama nuyu xalal malaayikati ci malaayika ya nee na boo toppee ñu wax ne yéene jooju mënu cee ñàkk da ngay wax ne kon bu dee ilimaan day yéene ci ab salmalam noppi ci julli ga ba noppi yéene waale caa nuyu waale malaaka ya fa teewoon ak ñam doon jiite bu dee kenn képp ku julli nag moom mu yéene noppi ci julli gi te yéene waale nuyu malaaka ya nga xam ne ñoo teew ak moom alhaadiyata asharata fukkeel beeg benn al i'tidaalu mooy yemoo fil fasli ci tàqale ga benn arkaan diggante ponk ya maanaam farata bi nekk fukk fukkeel ak benneel mooy boo siggee ci rukkoo mbaa nga siggee ci sujjóot da ngay dellu ba jub xocc mel na nga meloon ba nga sëggagutoon waaw maanaam boo siggee ci rukkoo bi nga dellu ba mel na nga meloon ca siggi ba jub xocc mel ni ba nga sëggagut loolu farata la boo siggee ci sujjóot ba tey noonu la ngay delluwaat toogaat ba jub xocc mel ni ba nga sëggagutoon ak taaniyata xasharatu fukkeel beeg ñaareel ak tuma aninatu mooy dal ga fii arkaani salaati ci ponki julli ga kullihaa mbooli seen qiyaamihaa seen taxawaay wa rukooxihaa ak seen rukoo wa sujoodihaa ak seen sujood wa rafi ak sigi ga min haa ci rukoo sujood wa bayna sajdatayni min haa wala min humaa ci ñoom ñaar mu del ci rukoo sujood wa bayna sajdatayni ak diggante ñaari sujood ña fukkeel benn ñaareel mooy loo yàkkamti yàkkamti boo dee julli foo toll ne tekk ba cër yi dal boo rukkooyee faaw nga ne tekk boo siggee faaw nga ne tekk boo sujjóot faaw nga ne tekk boo siggee sujjóot noonu boo toogee diggante ñaari sujjóot noonu nga xam ne boo yàkkamti woon ba mel ne picc muy cof rek ak a cofaat boo yàkkamtee lool loolu ba néewoo tekk daal ci foo mën di toll ci ponk yi kon du baax ne tekk loo yàkkamti yàkkamti rek toore jàll farata la wal farqu teqale bay na xaa diggante tuma aninatu wa baynal i'tidaal ak diggante i'tidaal mooy ànnal i'tidaala naka yemoo ga fil xiyaami ca taxawaay ba masalan ci misaal intisaabul xaamati mooy sampuk taxawaay ba maanaam mooy jubuk taxawaay ba wat tuma anil tuma aninatu wat tuma ninatu tuma aninatu istiqraarul axdaa yi mooy saxuk cër ya nee na bul jaawale intidaal ak tumanina intidaal mooy cër yi jub tumanina mooy cër yi dal ku ci nekk mën naa am te moroom ma du am ndax cër yi mën naa jub te du dal mën naa dal te du jub kon nag jub xocc mooy intidaal dal ne teg door a jàll mooy tumanina ak taalifata xasharatu fukkeel beeg ñetteel tartibul adaa'i mooy toftale joox ga toftale joox ga mooy toftale farata yi waxoo moom añ yekkoon mooy bu nekkee al ihraamu armal ba qablal xiraatu ci njëkk jàng fatiha wal xiraatu jàng fatiha nekk qabla rukoo ci njëkk rukoo war rukoo rukoo nekk qabla sujood ci njëkk sujood wa sujood sujood nekk qabla salaam yi njëkk sëlmal maanaam bokk na ci faratay julli yi nga jiital la jiitu teg ca la ci topp ba ab ràkk àgg nga tegaat ci beneen xam nga allah akbar armal moo yéeneem ñoo jiitu jàng fatiha akub taxawaayam topp ci bu ko defee rukkoo topp ci ak siggi jàll sujjóot siggi nga tegal ràkka noonu nag tegal julli gi ba julli gi mat noonu farata la boo doon julli tàmbalee ko jàng fatiha xadis waxoo allah akbar armal du baax boo doon julli njëkk sujjóot rukkoo ba tey du baax te aajo nga tegal ràkk bi nam tegaloo jàll nag ba julli gi tegaloo na war a tegaloo ba asalaamaaleykum mujj ci arrabihata xasharatu fukkeel beeg ñeenteel almuwalaat mooy susale ga fa yajibu dana war iqaaxu ajsaai salaati tàbbal xaaji julli ga wa arkaaniha ak ay ponkam yëli mbir moom dana sësoog baaduhaa lenn seen baadan lenn min gayri tafriqin ci lu dul ak teqale moom daal limaale ci farata yi susale jëfi julli gi maanaam loo def teg ci la ci topp waaye boo newoon allah akbar armal bàyyi ba mu yàgg lool nga door jàng faatiha bu baax ba tey boo jàngoon faatiha ak saar ba mu jeex nga bàyyi ba mu yàgg lool susale woo ci rukkoo ba tey du baax xam ne kon susale jëfi julli gi ba ngeen teqale teqale bu yàgg yàgg loolu mu du ko wàññiwaale ci farata yi faslun li ab dog la wasu na nu salaat sunay julli samaaniyata xachara fukk laak juróom-ñett julli daa bari ay sunna fukk ak juróom-ñett la al ula ba ci jëkk xiraatu suuratin mooy jàng aw saar aw maa wala loo xam ne yaqumu dana taxaw maqaamaha ci taxawaayu saar baadal fatiha ci ginnaaw fatiha fi suppi ci suba wal jumati ak julli jumaa wal ula yey ni ak yaar yi jëkk min xëyrihima ci ñoom ñaar min faraidil ayaani ci faratay jëmm yi bi njëkk ci sunnay julli ci ni wàññee mooy jàng aw saar mbaa lu wecc aw saar gannaaw faatiha waaye loolu nag ñaar rakk njëkk rek ñoo koy am bu dee suba ñaar rakkam ñëpp koy am bu dee ajuma ñaar rakkam ñëpp koy am bu dee tisbaar takkusaan timis gee ñoom ñëpp ba tey seen ñaar rakk njëkk rek ñooy am aw saar ci gannaaw faatiha xam ne jàng saar wa mbaa lu wecc aw saar ni ki laaya mbaa ñaari laaya loola sunna la ab taaniyatu ñaareel bi alxiyaamu mooy taxawaay ba li daalika ñeel loole jàng saar yi ci boppam day sunna taxawaay ba ngay taxaw di ko jàng itam sunna la ab taalisatu ñetteel bi aljahru mooy biral fil oola yey nit ñaar ñi njëkk minal maxari bi ci timis wala xisaari ak gee wa jumlati suubi ak mboolem suba wa shafi ak safa wala witri ak wetar wal jumuhati ak julli ajuma wala ay day ak yaar julli xiid yi wa nawaafili leyli ak naafilay guddi wal istisqa ak julli mbaaw daa bëgg wax ne biral mooy wax ca kaw fañ la ko digale moom itam sunna la waaye nag julli farata yi rek lay nekk sunna julli farata yi nag mooy fa mu tàmbalee ñaar ak njëkk ca timis ñu la faa digal nga biral ba ak ñaar ak njëkk ñeggee ak ñaar ak ay suba ak ñaar ak ay ajuma waaye lim ci bool na wax ne biral safa ak wetar ak jullit yaari xiit yi ak naafile guddi yëpp ak jullit mbaaw mu ne yooyu ba tey nga bëral leen sunna la biral ga lu ñu sopp la waaye du àgg ci sunna bu dee farat rek waaw bu dee farata lay àgg ci doon sunna waaye bu dee ci julli goo xam du farata te ndigal la fa biral xamal ne kon ak sopp lay doon arrabihatu ñeenteel bi al israaru moo di yalu fii ma xada zalika ci lu dul loolee fa ñu sunnaale yalu mooy léppi tisbaar ak léppi takkusaan ak rakk ba mujj ca timis ak ñaari rakk ñu mujj ca gee yépp ngeelu leen sunna la ngeelu nag naafila bëccëg gune ba te loolu lu ñu sopp la wasiru yalu maa mooy la nga xam ne laa yusmaaw dee fu ko dégg bi ubbi nañ ci ab nopp wal jëxru biral nag didduhoo mooy ab safaanam nee na yalu mooy wax ci suuf ba nga xamee ne saw làmmiñ rek mooy yëngatu waaye ku sës yow du ko dégg yow ci sa bopp sax mën nga woo bañ a dégg biral nag mooy nga di ko dégg lum néew néew ku sës ci yow ba tey di ko dégg tam biixu li ak yeete la law xara a doon te jàngoon na siran ci yelu fi maxalli jëxëri ci bérébu biral aw jëxëran baa mu jàng ci biral fi maxalli sirri ci bérébu yelu xam dañ ci tey aw saxun wala ci njuumte al aayata benn laaya wal aayatayn ak yaari laaya laa shay di dara xale yi di ko war li mu lay njëkk xamal mooy bu fekkoon nañ laa digal béréb nga yelu fa mel ni nga julli takkusaan rek ñu digal la fa yelu yow nga tàmbali faa biral waaye weesuwoo benn laay wala ñaar daal di fàttali ko ne ah man kat maa ngi biral waaye fii béréb yelu la mbaa boog lu mel tilis ci ràkk bu jëkk mbaa bu ñaareel ba ñu digal la fa biral nga tàmbali faa yelu waaye dangaa jàng benn laay mbaa ñaar daal di fàttali ko ne ah fii kat biral la fi dëkk sama maa ngi yelu loolu amul solo da ngay jàll rek noonu loolee nga fa def te dëkku ba ci yelu ga mbaa biral nga du wàññi dara dañ la koy jéggal du aajo wa sujud du aajo wa dara amma ida xara an daal ndem jàng na ak xara lu ëpp min aaya tey ni ci yaari laaya wadda dakkarate mu fàttaliku xabla waddahi yadahi ci njëkk teg yaari loxoom xalaa rukkubatahi ci ñaari bëti woom ahaada kon mu baamu ummal qur'aani fatiha wa suurat ak saar wa dafa wax nag bu fekkoon ne li laa digalan yelu ngay biral di biral ba yàgg nga door a fàttaliku ne ah man kat li ma fi def dëkku fi mbaa safaan ba ñooye ma kon bu fekkee jàpp ko ci say woom da ngay baamuwaat la nga jàngoon def fa la fa dëkk ba noppi nag ñu seet bu fekkee ne faatiha ak saaru yaar yépp ñoom nga baamuwaat kon bu julli gi jeexee na nga sujjóot ba xamdi salaam ba tey bu fekkee ne faatiha ja moom juum nga ca bu baamuwaat ko ba tey moom it na nga sujjóot ba xamdi salaam bu des nag bu fekkee saar wa rek nga juumoon ne faatiha ji aw na yoon saar wa kese ci nga jàddoon gannaaw ba nga baamu ko ndax awale ko ci yoon ci biral gi mbaa yàllu ko kooku moom du aajowoo sujootal kon nag takk-takk bi mooy noonu saa yoo xam ne daal dangaa taxawaloon ci misaal di julli tisbaar ñu digal la fa yelu nga jàng faatiha ak saar ba mu jeex door a fàttaliku ne ah man kat maa ngi doon biral te tisbaar gi ma nekk yelu lañ ma fi waxan waaye jàppagoo ci say woom kon na nga leen di baamu ñoom ñaari mu ñoom ñaar muy faatiha ak saar wa daal leen di yelu te bu julli gi jeexee nag nga sujoot baax de salaam bu fekkee xas nga jàpp ci séwoon dañ ko wax léegi ba tey boo doon julli timis di ko yàllu di ko yàllu ba jàng faati ak saar wa door a fàtte ko ne ah man kat timis biral laa fi waroon def te maa ngi yàllu kon ndegam jàppoo ci séwoon na nga daal di baamuwaat la nga jàngoon daal di koy jàngaat bu ko defee loolu kon bu fekkee faati ak saar wa yaar yëpp la bu julli gi jeexee na nga sujoot baax de salaam ndax ndolleel ni takk-takk bi daal mooy bu fekkee ni yaar yëpp nga juum baamuwaat leen mbaa faatiha ja moom juum nga ca baamuwaat ko foofu rek mooy am sujoot waaye saaroo kese moom boo ci juumee moom dong ba baamuwaat ko du aajoo sujoot wa in tazakkara ndem fàttaliku nag baada wadhi yadihi ci gannaaw teg yaari loxoom xalaa rukkubatihi ci ñaari bëti woomam moom laa yarjihu du delluwaat li ànd xaq da rakkaati ngir naka fas rakka ba xinda bunil qaasim fa ibnul qaasim bi rafi rasi nekk na ci yëkkati bopp ba dina rukkoo yi bàyyi ko ci rukkoo illaa fi masaayil ndara ci ay masala min ha yoo xam ne bokk na ca haasihi mile fa inna xaq daxaa naka fasam nga bi wab yeddayi nekk na ci teg yaari loxoom ala rukkubati yi ñaari bati woomam nee na nag bu fekkee dangaa fàtte yelu mbaa biral nag bu xas jàpp ci say woom da ngay jàpp ne kon bu dee yelu gaa bu dee biral gaa raw na la nga sujjóotal ko nam ware bu fekkee dangaa bàyyi waaw maanaam foo xam daal da nga faa war a yelu mel na ci subaa soo ko biralee dangaa yokk kon ban salaam ngay sujjóot foo xam ne dafaa digal nag biral mel na timis ñaar rakk ñi ci njëkk yow nga yelu ko da ngaa mel ne ku wàññi kon xawle salaam ngay sujjóot noonu lañ koy takkee daa wax ne nag boo xasee jàpp ci say woom rek jeex na doo fàttaliku rek ne bàyyi naa yelu mbaa biral daal di bëgg a delluwaat ci taxawaay ba déedéet ngay jàll rek te def fa sujjóot ba fa dëkk niñ ko leeral léegi ndax dañuy jàpp ne boo xasee jàpp ci say woom rek rakk bu fasu na ndax ibnul xaasim ak ashab dañoo wuute woon ci lan mooy fasu ràkka ashab day wax ni moom boo xasee jàpp ci say woom rek ràkka ba fasu na ibnul xaasim ni déedéet da ngay rukkoo ba siggi ràkk ba door a fasu waaye nag am na ay benn benn masala yoo xam ne mii mii ta la bokk ñoom ñëpp maase nañ ci ne boo xasee jàpp ci say bëti woom rek ràkka bu fasu na bi da cee bokk nag moo tax moo tax mu ne fa inna xaq daha bi wadd yaday ala rukbatayhi xaala wax na baaduhum leen ci ñoom law taraka doon te bàyyi woon na aljahra biral xaamidan mbir muy aji tey ko faxila kon waxees na ne yastaxfiru day jégglu allah yàlla taxalaa kawe na wala cheyte di dara xale yi di ko war waxee la waxees na ne tabatul day yàqu salaatuhu julleem nga li ann haza ngir naka lii min at tahaawuni mi ngi bokk ci sabantal maanaam doyadal bi sunna ci sunna ya kama yu tahaawanu nit ki dee fi doyadale wala sabantale bil faridati ci farata maanaam bu fekkee da ngaa bàyyi sunna te tey ko dañ caa wuute mel ne ñu digal la biral nga tey ko bañ faa biral daal di fa yelu waaye xam nga tey juumoo yaa ko tey am ñu ne da ngay jéggalu yàlla rek waaye doo fa sujjóot doo fa def dara ndax ndegam moom juumoo kenn du la sujjóot loo dara waru la ca am ñu ne julli am ñu ne julli ga daa war a yàqu ndax boo bàyyee sunna ngir woyefal ko moo nga bàyyi farata ngir woyefal ko ñooyema wax ji gën a wër nag mooy da ngay jéglu rek yàlla waaye sujjóot waru ca te du tey julli ga baax na ndax bàyyi sunna mu warta yàq julli alxaamisa juróomeel bi kullu takbiratin bépp kàbbar sunnatun sunna la maaxada takbirat ihraam yi ndare kàbbaru armal ba tey say boo jàpp ni mboolem allahu akbar yi ngay wax julli gi yëpp rek sunna lañ ba mu des bi ngay njëkk a wax bi ngay njëkk a wax moom muy kàbbaru armal moom farata la asa di saf juróom benneel bi ila taasixati ba juróom ñeenteel